ci noonu la ñuy daal di dellu si rek ci li nga xamante ni mooy économie wàllum koomu réew mi daf ñoo ñor ñu daal di jàll rek ci Binta comme ni ñu ko annoncé dafa fas yéene waxtaan ak ñun ci li nga xamante ni mooy lëkkaloo am diggante Turquie ak Sénégal lan mooy impact yi financièrement ci économie wu Sénégal ci noonu la ñuy dalalee Binta c'est tout de suite. économie moom daa laaj bind. <laughs> dafa laaj bind mais Rokhaya koppar bi la may laaj agent liquide bi à chaque fois moom la may laaj bi ñàkk paasan nga décaissé nag lu bëri ma indi ko ci plateau bi. tamit ak ah, Yacine n'est-ce pas. ciy baax mbokku téléspectateurs yi foog ñu am ci liquide bi tamit. Mhm. waaw mhm. Euh, Asma comme ni nga ko junjuwee rek noonu la euh, gis nañu coopération bilatérale bi nga xamante ne day ñeel ñaari dëkk. Mhm. Euh, mën nañ def ay échange par exemple ki mën na ñëw tabaxal lii kële kële ñëw indi financement ci ci. lëkkale maanaam xeetu jàppalante la boo xamante ne euh, dina boole ñaar ci ay réew tey nag li tax ñu am taxaw seetlu euh, ci Sénégal ak Turquie mooy que ni président bu turc bi mën naa wax ni dañoo bëgg torop moom saa bu jógee rek day ñëw fii nga xamante ne mooy Sénégal ñu war nag xool lu tax euh, choix boobu parce que yàggul dara en deux mille dix-huit en février je pense que Erdogan ñëwoon na fi mais mm-hmm. boobu il était venu nekk premier ministre mais bi nag dafi ñëw en tant que njiitu réew ñu gis euh, président Macky Sall dalaloon ko ñu waxtaan ci nag euh, ak kenn ki nga xamante ne xam-xamam màcc na jëm ci wàll bi muy professeur Mor Gassama mm-hmm. dañ koy teewlu rek dellusiwaat sur le plateau léegi léegi. Euh, waaw président Turquie vraiment gis na ne quand même moo ñaar yoon ci diir bu gàtt mu ñëw ci Sénégal donc loolu day wane ne rek ne relation yi am entre Sénégal ak Turquie maanaam coopération bu dynamique la maanaam bi yëngatu bu baax a baax euh, at yëpp gis na na infrastructure yu bëri am Sénégal yoo xamante bi daanaka Turquie ñoo ko ñoo ko construire ñoo ko financé construire ko ah, donc ci mel ne donc arena bi du ci mel ne Radisson bu nekk jam ñaajo marché international et cetera infrastructure bëri na donc day montré na vraiment coopération bu dynamique la voilà et puis loolu nañ koy saluer aussi parce que bu njëkk ba presque lu ci ëpp Sénégal France Sénégal France gis nga bi ñu fi tegee France yi diversifier affaire yi euh, on a vu les résultats et c'est très important voilà du temps euh, de l'ancien régime gis na ne donc arabes yi ñëwoon nañ ñeneen ñëwoon nañ Turquie gis nga même chose ak président Macky gis na ne l'entrée en force des Turcs des Turcs voilà gis na chinois ñëw et cetera bref en tout cas coopération moom dëkk am réew day xool li gën ci moom mu koy def koo xamante ni bu ñëwee andi xaalis investir infrastructure ñëw ñu créer ay emploi aussi kooku moom mooy du ko saluer. waaw Sénégal euh, avantage yu am déjà position géographique bi la mais également stabilité politique bi voilà ba tax na euh, dëkk yu bëri wala yenn entreprise yu am doole souvent bu ñu bëggee ñëw moom dans la sous-région dañu préférer installer au Sénégal après partir à la conquête de la sous-région. voilà parce que au moins stabilité dafa baax ci réew euh, parce que da ngay xam ne yow mi indi say milliards di ko investir tu ne vas pas à l'aventure boo ko tëg nga xamante mën nga fa investir lu bari d'un moment à l'autre mën nga perdre lépp ndax bu guerre jógee wàlla donc ay violence et cetera mën na la yàqal ci lu bari waaw loolu yàlla mu ngi cee sàmm Sénégal moo tax da euh, ñëpp war nañu cee góorgóorlu aussi jàmm ji ñu am ñu gën ko sàmm bu baax parce que li ñuy attiré yëpp ci investisseur euh, ñi fi ñëw organisme internationaux yi yëpp ay ay ay sièges donc du moins euh, le résident au la sous-région souvent Sénégal nekk lu ci bari bari li ko waral rek mooy jàmm ji fi am waaw parce que déjà bu nente ne yaa ngi lëkkaloog yeneen réew ça veut dire que booy négocier dangay kenn du la mën a kenn du la xoj maanaam ne lii rek moo fi nekk jël si apprendre à laisser di nga am plusieurs choix loolu mooy avantage de multiplier ses partenaires voilà donc c'est vrai bu njëkk ba dama ne France amoon na fi doole mais gis na ne la Turquie économie émergente boo xamante ni bii vraiment mi ngi diir mag dëkk réew yu mag mag waaw te gis ne aussi Turquie macha allah liggéey bu baax lañu ñu def liggéey ba rafet la ñu def te qualité la def aussi voilà donc pour man euh, coopération bi noonu lañ ko war a continuer accélérer diver gën ko diversifier davantage. boo xoolee coopération bu amee entre réew mu am doole ak bu boo xamante ni réew am euh, koom yu néew. foo fekk coopération boobu rek lu ci ëpp euh, ci kële ëpp moo ci ëpp lu muy am parce que réew mu am doole parce que souvent moom mooy jaay ànd ki jaay ak kiy jënd kiy jënd mën jënd lu baax am ay infrastructure mais kiy jaay moom moo ci gën moo ci gën parce que mooy gën am bénéfice voilà noonu lay demee. waaw ni tey ñun ak coopération bi permettre na ñoom par exemple mel ay Dakar ay nang am ko marché grand donc d'intérêt donc euh, bi nekk bu mag bi foofu ñu am ko. Euh, Radisson bu par exemple jam ñaani extra yooyu yëpp yi am nga ko ci coopération ce n'est pas mal ñoom bu la permettre ñu indi refinancement ba pare tabaxal la boole ci ñu di ko jaajëfal bu baax a baax monsieur Mor Gassama on a qu'on a eu le plaisir de recevoir ici euh, samedi dernier waaye nag xam naa moom il faut muy ñëwaat comme ni muy faral di ñëw nii dafay baax mu ñuy leeralal li nga xamante ni mooy wàllum économie si fànn bu ne asma comme ni nga ko waxee noonu la ndaxte économie moom dafa yaatu donc fu nekk rek la ñuy tibbee bëgg rek ñi ñuy seetaan gën ci am lu leen leer euh, ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax comme ni nga ko waxee euh, moom professeur euh, moo Gassama donc coopération bilatérale bi nga xamante ne moo boole suñu réew réew bu Sénégal ak réew bu Turquie nag dafa nekk loo xamante ne mu ngi gën di am doole parce que bu ñu fàttalikoo en 2008 tabax nañ rek benn usine usine de farine boo xamante ne ci yoonu Rufisque boobu la nekk nekk euh, mu employé lu toll woon ci deux cents sénégalais donc en matière de com gis nañ ni mu ngi fi am na ay développement yi nga xamante ne ni euh, Turquie ak Sénégal ñu ngi koy def euh, ba ba ci noonu itam en 2010 gis nañ ni amoon na ñuy faj jóge ci réew bu Turquie ñëwoon fi def fi ay consultation gratuite amoon ay garab yoo xamante ne itam dañ ko yëkkati woon jox ko askan bu Sénégal ba ci loolu asma suñu partenariat di gën di dem gis nañ ni bi ñuy jeexal liggéey yi nga xamante ñeel aéroport euh, Blaise Diagne am na benn entreprise turque bi nga xamante ne dugal na ci loxoom bu baax a baax euh, est-ce que xam nga ni centre international conférence Abdou Diouf tamit Turquie waa Turc waa voilà ñoo ko defar naka noonu itam le centre des expositions la gare des gros porteurs loolu itam nekk na loo xamante ne Turquie moo ci dugal loxoom ngir rek euh, xawal ko leneen euh, loo xamante ne ñeel na Turquie ak Sénégal ba tey mooy stade olympique bi nga xamante ne euh, namm nañu euh, door liggéey le 20 février bi ñu dënmal boobu itam Turquie moo ci dugal li nga xamante ne mooy loxoom pour wax la coopération bilatérale bi tënk ñaari réew yi day gën di am doole mais ñun asma li ñuy soxal ba tey mooy suñu réew mooy Sénégal moom laka lan la mën a am ci coopération yu ni demee hmm. Euh, ba tax na gis nañ ni ñoom économistes yi ñoo ko wax euh, réew bu Sénégal dafa lëkkaloo woon bu baax a baax Yacine ak réew bu France. Mm-hmm. lu ci ëpp si suñu ay marché euh, France moo ko doon faral di jël. te loolu nag amaana dina indi ay gàllankoor parce que bu fekkee ni kenn rek ngay jëflanteel doo xam loxo keneen. Mm-hmm. tey jii bu fekkee ni damay dem ci asma rek di fa añ duma xaasi fu mu mënee yenn saa yi da war a dem añ fee ci paasan yenn saa yi nga añ feneen ak feneen bu ko defee nga méngale xool euh, ban ban ban plat moo la gën a arrangé donc noonu la demee gis nañ ni président Macky Sall dafa gën a renforcer euh, coopération wam ak réew bu Turquie ñu gis ni chinois yi ñu ngi itam au Sénégal donc mu jox ñu euh, benn ouverture ñu ñu ubbeeku am largement le choix par exemple tey bu ñu waree tabax dara Euh, ñu def appel d'offre bu fekkoon ni France rek moo fi nekk amaana France moo fiy sës waaye buñ ko defee ubbil la ko ubbil ko Yacine ubbil ko keneen ak keneen léegi dañuy xool ki nga xamante ne moo ñu war a jural lu gën a intéressant suñu wàllu économie ñu jël marché boobu noonu euh, dénk ko ki nga xamante ne euh, liggéeyam daal wala dugal loxoom ci lañ ci gën a gis suñu bopp bu fekkee am ngeen ay contribution man sama contribution laaj lay doon lu tax c'est Euh, les, les à tout le monde bu ba tax ne ñun dañuy am choix c'est très important parce que Yacine Bosset Lo dañuy faral di ñàkk choix mm-hmm. te comme ni ñu koy waxee réew warul yelwaan mm-hmm. dafa war a am choix ah. su war a décider dafa war a am choix mais tey jii si suñu am choix bi sax lu tax duñu jël décision sóoraale ni sénégalais dafa war a évoluer ñii ñoo di ñu di defal ñu benn liggéey si suñu réew lu tax ci suñu ay convention duñu dugal nii ah boole leen sénégalais yi seen wet ngir ngeen euh, partager xam-xam gi ak ñoom pourquoi loolu amul. waa loolu dinañ ci woon ñëw parce que euh, li gën a am solo ci wàllu koom déjà boo fekkul ne tu es spécialiste en la matière sax war nga ko xam mooy que da nga war a fexe ba dooleel sa koomu réew loolu en quoi faisant mooy entreprise yi nga xamante ne ñoo samp sa biir réew lépp lu ñu mën a def rek bul ko jéggaani da nga leen koy jox mais seulement niñ koy defee amaana c'est à revoir par exemple nga jël tey sa benn marché par exemple nga war a tabax hôpital nga jël lépp dénk ko koo xamante ne entreprise étrangère ministère la moom à son niveau du jël doomu réew yi mais euh, lépp ñoom dañ koy tënk rek jëlaat seen koppar yóbbu du am sous-traitance amaana yegguñu fenn yi peut-être je dis peut-être je bien mais mots euh, léegi bu bu fekkente ni tey jii amaana yegguñu fenn ci niveau yu mën a def yenn infrastructure yi warul itam tax ba ñu dénk lépp keneen ci accord yi war nañ la mën a wax ah yow li ñu mënul moom nga ñuy defal mais li ñu mën da koy jox suñuy doomu réew donc